asalaamaaleykum Géejawaay asalaamaaleykum diaspora man la Abdourahmane Touré di coordonnateur général Géejawaay culture man maa ànd ak samay nattango ñi nga xam ne ñoo représenté fédération bi pour ñu ñëw tey waxtaan ak yéen euh, bu ngeen xoolee ñi ma àndal ni maa ngi ànd ak euh, monsieur Adama kamara di comédien bu mag fii ci Géejawaay dëkk Ndiarème lay ñëpp xam ko euh, fukki topp aussi di comédien soxna Daba Sey euh, tamit ñëpp xam ko ki ci tegu tamit je pense que ñëpp xam muy artist musique reggae bu mag ñu koy woowe Aljo mu am groupe bu tudd Badons ki ci tegu kii di soxna ay Aïcha Diallo di chanteuse bu ñëpp xam euh, ki ci tegu kii di Bouba Diallo di comédien également dëkk Gunaas ñëpp xam ko euh, des Toubab Diop je pense que di artiste yi bo xam ne ñëpp xam ne ko di costumier euh di metteur en scène vraiment bokk tamit nek ay membre fondateur ci ARCO je pense ñëpp xam ko muy Dé Toubab Diop amna tamit suñu natango yo xam ñu ngi and ak ñom ñom ñu ngi derrière la caméra ku melni Cheikh diane Sall mu ngi fi ku melni également Yero Lidel Niang également mu ngi fi mooy chargé de communication bi moom moo coordonné liggéey bi euh, Cheikh Maguette également di membre comité d'initiative moom tamit mu ngi fi ak ñeneen ñoo xam ne ñi ñu dabi ci waxtaan bi waaw li tax nag ñu yëkkati kàddu mooy euh, ñëpp xam nañ ne que ñun wax yu bari yo xam ne nañ ko waxtaan ak mi jotoon nañ ko yëkëti kàddu fi wax ci lu bari si par rapport ñun suñu relation ak la mairie de ville de Guédiawaye la motax ñun ñu doon wax ak mairie de ville de Guédiawaye euh, ñun structure départementale lañu fédération Guédiawaye culture ñun dañu ëmb culture bi ci département bi yépp ci commune yépp ci sous-secteur donc ñun ñu dénk ñu état du Sénégal dénk ñu mairie de ville de Guédiawaye moy luñu wowe compétence transférée muy baat bo xamné dama bari li koy wax mairie de ville de Guédiaway nak ci budget def ci voté par voté par force culture mais également état du Sénégal fay jël luñu wowe woowee fonds de concours et de dotation mu koy jox mairie pour ñu jël en charge culture ak yenen compétence transférée yëpp loolu moom moo ñun bu ñu doon yëkkati kàddu ñuy dem ci mairie de ville parce que ni mairie de ville lolu nga xamné ne daf ko yelloo ak ñun maanaam def ko ni ko waree depuis 2014 bi ñu fi toggé ba légui lool ñu defoon ci nak communication bu gudd bu gudd bu yaatu waxtaan ci wax ci ba yalla def ñu def ci sax conférence de presse ci bir conférence de presse bi ñu yëgal mbolo mi yëgal askan bi yëgal autorité yi ko ñun dañoo déposé won sitting pour ñu tok buntu mairie de ville de Guédiaway pour ñu mëna a yëg suñu suñu suñu suñu naqar ak suñu jaaxle yàlla mi dara teewul tax kilifa yooyu seen xel dellu si ñu xam ne dëgg la naam ñu lu ñu woote li amu ci dara lu am saafara amul dara lu ci am euh, danger en quelque sorte quoi lu maanaam lu légitime la su fekkee damay wax rek baatu tubaab ñoom seen bopp ñu xamal ko seen bopp ñu wooñu ngir ñu mën a waxtaan ak ñoom ñu xool lu ñu trouver ay solution ah bi ñu wooyee toog nañu waxtaan suñu biir ñu xool ñu xam ne kilifa nag bu la woowee yow ngay ndaw ne la damaa bëgg a waxtaan ak yow lu gën a rafet mooy nga dem ba déglu ko nga dégg lu mu lay wax. boobu ñu doon dem di toog ak ñoom suñu demande d' autorisation de sitting mu ngi préfecture ça veut dire li olof naan daas fanaan la ñu daasoon fanaanal maanaam bu fekkee ne ñoom ñun lu ñu ñëwoon seet amuñu ko.

dem nañu sax ba tudd ne xëy na dañuy yaakaar dañu dañuy politique waaw ndax ñoom jàpp nañ ne acteurs culturel yi bu ñuy wax seen wax day sóoraale politique moom moo tax ñoom daaw ñu woon dégg waaw boobu nag ñun tamit bu ñu jëlee kàddu ñu woon leen ne ñun suñu wax amul dara lu ci nekk politique ñun suñu wax c'est purement et simplement culturel professionnel te c'est légitime mhm. waaw loolu dama dama dama bëgg a daanee foofu parce que c'est important mhm. pour woon que ñun suñu wax jooju c'était légitime ñun revendiqué ñu leneen loolu lu ñu moom amul dara luñu laaj lo xamné faveur la li nga xamné yoon daf ñuko jox ñun loolu lañ leen ñaan loolu en fait loolu lañu demander ñu jox ñuko comme ni ñu koy joxé ñeneen ñep ñu koy jox sport diko jox éducation diko jox santé ñoñu di ay compétences transférées comme ñun ñun ñu bañal ñu loolu loolu kese la woon yelwaanuñu saraxuñu ñaanuñu dañoo bëggoon lo nga xam ne mooy suñu àq ak suñu yelef ñu jox ñu ko. Euh, gannaaw bi nga xam ne kii di monsieur le maire Aliou Sané daje naa ak yéen waxtaan ñoo wax lan moo tukkee ci jotaay bobu waaw jotaay boobu lu ci euh dañu ñëwoon ak ay points de revendication point de revendication yi bo xolé si ñenti mbir lañ ko tënk ñun benn bu si njëkk moy duñu woyé financement de la culture ak garantie institutionnelle bon financement sax bo xolé c'est trop dire euh, parce que c'est plutôt subvention mais ñun japp nañu ñom dam nañu ak ba di wax fonds de développement de la culture Un euh, point bi nga aussi mu point bu important pour ñun muy infrastructure parce que nous gis que géejawaay amul benn bërëb bo xamné ne bi mën nañ fa défé pratique culturelle bo xamné carrément ci dédié à ça dans les normes benen bi muy événement animation culturelle ak diffusion lol tamit nekkoon ben point bo xamné ñu wax dañ ko waxoon ak ñom benen bi mooy euh, géejawaay ville créative ñeenti point yoy mo nekkoon suñu point de revendication ci financement ak garantie institutionnelle bi ñun dañu ne dañ leen waxoon né ñom té lolou ñëpp xam ko depuis 2014 ba nga ni benn yoon la ville de Guédiawaye mës a subvention jëmale ko ci culture bi 8 millions la won

dina génn te bu génnee ñun ñii nga xam ne ñooy acteurs culturels yi ñun ñooy définir critères yi ñun ñooy définir critères yi ak clé de répartition yi loolu mu nekk un très grand pas parce que dañu ne culture gestion participative ak inclusive la ça veut dire que ñun acteurs culturels yi lépp lu ñuy defal dañu war a toog ñu bokk ci ni ñuy koy defalee ñun ñooy bénéficiaires yi dañu war a xam nu mu war a mën a demee donc cette année incha allahu rabbi subvention buy génn dañ ko teg ci table bi wooñu ñu wax critères yi ak clé de répartition yi maanaam ñan la ko ñan ñoo ko yelloo ak ku ne ñaata nga yam mu nekk lu transparent loolu mu nekk un très grand une très grande avancée boo xam ne jot nañ ko am ci euh, ci ndaje boobu euh, beneen bi mooy ñun Guédiawaye culture fédération boo xam ne bi dañoo ëmb ay association bu ëmb ay organisation tey ñu ngi koy jàpp ci près de 100 organisation association ak acteur culturels yu booloo accepté nekk fi lu mel ni ay arco yu mel ni ay collectivités artistes plasticiens arco mooy comédiens yi ñu nga xam ne au niveau national sax am nañu représentation fii ci Géejawaay ñu xam leen mel ni ibu Fall jiite ko ak ñi ak ñu ma àndal ñoom Cheikh Mbacke ak ñeneen ñoo ñu ngi ci biir lu mel ni euh, collectif des artistes plasticiens suñu papa suñu mag suñu nijaay Seyni Diagne Diop jiite ko ñu ngi ci biir

mairie bi nangou loolu accepté joxé une subvention pour Guédiawaye culture à partir de cette année. waaye gis nañ ni gannaaw loolu do artistes yi fi nek yépp ñoom ñoo lay wuyu ci ci kuréel yi nga xam ne moom ngeen taxawal ndax yéen nga liggéey ci ñooñu pour mën leen a boole si fédération bi ñu mën a gëna am li nga xam ne moom mooy benn bo benno bi nga xam ne lay woté waaw waaw loolu loolu loolu suñu mission la bo xam ne bi mission principale la suñu mission la bo xam mission principale fexé ba acteur culturel lu les ñu parce que culture c'est la liberté acteur culturel liberté ñun acteur culturel yi. sommes ñun ñu ci étape bobu hein. étape sax na wax né mom la ñu euh, massification étape information étape sensibilisation parce que ñun fédération en fait bëgg sax faf

couturier ak styliste fii ci Géejawaay mom également collectif am accepté dugg euh, mu am ay xale yoo xam ne yi ñu ngi fii tamit Géejawaay nekk euh, ay styliste yu mag a mag ba di gagné ay raaya ñoom ñu ngi ci biir xale bu mel ni na ko dal ñu ngi koy félicité parce que mu ngi vraiment tout dernièrement rek raaya bu mag a mag a mag euh, fu mu nekk nii ñun ñu ngi képp koo xam ne acteur culturel nga artiste nga yaa ngi fii géejawaay ñu ngi lay tàllal loxo kër gi sa kër la parce que c'est c'est c'est important que ñun acteur culturel yi ñu won à l'opinion ñu won ñëpp yeneen corps de métier yi que ñun également on est capable d'être ensemble parce que on a les mêmes problèmes dañuy ànd di saafante di foo di ree donc pour ñun ñu ànd toog bokk benn bërëb loolu amul benn jafe-jafe si ñu jërëjëf léegi bu duggee ci wàllu ubbeeku nga xam ne mooy appel bi lancé ngeen ko mais est-ce que sóor ngeen ci tey ambassadeur maanaam géej yi nga xam ne tey fii aussi les anciens parce que et puis c'est important euh, c'est très très très important Moi, ñi nga ndax ñun bu ñuy tàmbali culture am na ay mag ñu fi fekkoon euh, sànq tudd naa ci kenn si ñoom ku mel ni Seyni Diagne Diop moom mu ngi ci biir si mag yi ñuy conseil la bokk ku mel ni Mamadou Camara Caster di bindkat bu mag ñëpp xam ko moom mii mooy encadré ñoom Pape Michel Mindi ñi nga xam ne mooy suñu secrétaire général euh, bindkat la moo koy encadré di ñu encadré ñun tamit di ñu conseillé ku mel ni Seyba Traoré nekk suñu mag ñoom ñëpp ñu ngi ci biir ñu mel ni ñoom Marouba Fall ñoom ñëpp waxtaan nañu ak ñoom ñu ngi ci biir

artistes yi nekkoon fii ak ñun di ànd ak ñun di liggéey liggéey bi yàlla def tey ñu nekk bitim réew ñooñu fàttewuñu leen ñu ngi ci biir ñeen ñi ñu ngi Mauritanie fii en Afrique ñi nekk Mali ñeen ñi tamit ñu ngi Europe am ñu nekk Allemagne am ñu nekk France am ñu nekk Espagne am ñu nekk Italie ñooñu ñëpp ñu ngi jokkoo ak ñoom bokk nañ ci plateforme bi ñu ngi waxtaan ak ñoom guddeeg bëccëg suba ngoon parce que culture géejawaay ñëpp a ko yor doomu géejawaay yëpp ñi nekk ci biir géejawaay ak ñi nekk biti yëpp bu loolu weesoo di ñëw rek ci li nga xam ne moom ngeen fas yéene digmal gannaaw bi nga xamee ni dem ngeen maire waaye bu mënoon dellu ci ci point yi nga xam ni maire accordé na ko ak li nga xam ni euh, daje ngeen fa ak yi nga xam ne waaw euh, boo xoolee point yi ñu indi yëpp daf ko daf ñu ko nangul wax dëgg yàlla ba yokkal ñu si sax parce que point yi ñu indi woon yi mooy euh, li ma ko waxee léegi subvention bi def ñu ko nangul point yi ñu ko indiloon yi mooy.

Il nous expliquer ko Faut expliquer opportunité expliquer euh, mode d'alimentation, fond mission fond gestion fond bobu, objectif fonds Y ak un partenaire pour fonds bobu. expliquer convaincre problème parce que moi, culture laaj ko culture ko té en tant que maire donc fonds bobu mom point rek bi yëpp lu ñu àndoon ak moom lépp lu ñu ko ñaanoon defal nañu ko bureau culture tamit ñaanal nañ ko ko na ko xoolaat bu baax a baax a baax a baax waaw demoon nañu sax ba ne na fa na fa dindi ki mu fa teg waaye daf ñu wax wax joo xam ne ji ñun suñu bopp nangu nañu wax jooju parce que daf ñu wax ne baatu olof la ñu wax mënumaa joxe bopp rocci làmmiñ comme yéen ñëpp acteur culturel nga ngeen toog leen ngeen waxtaan seen biir ngeen déggoo kookit ci ndaje bi. jël na engagement à partir maintenant dina changer ba ñun li ñu doon jooy ci moom doot ñu ko jooyati ñun nag ay nit lañu ñun ñëpp ay père de famille lañu ñun ñëpp ay acteurs culturels lañu ñu ñëw bokk géejawaay donc ànd ak moom di liggéey moo ñu gënal foofu ñu ko fay dindi ñu indi keneen donc loolu mu nekk point boo xam ne jot nañu ci fa waxtaan ba yàlla def euh, ñu déggoo ci loolu bu loolu weesoo ci côté infrastructure ñun dañ ko ne nañu wax ci salle bi salle de bi mu ñuy dig depuis boobu ba léegi te ñun waxtaan ñu si ak ñun mu war ñu ne nag salle bi la moo tax waxtaan si ñun salle boobu ba léegi waxtaanu biir néeg la nekkul waxtaan buy génn ci biti waaye nag am na kenn koo xam ne mag la si ñun mu ngi ciy waxtaan ak moom te kooku xam-xamam màcc na dem ci salle parce que géré na sax lu toll ni ne saalu Sorano mel ni Seyba Traoré nee na mu ngi ciy waxtaan ak moom lu bari ba sax demoon na ba dina da ko yebal bitim réew mu dem mu xool yeneen salle du ñu mel pour mu ñëwuñu ñu waxtaan ci moom ci salle bi ni muy mel fii ci Guédiawaye waaye nag bu demee ba egg nag ba fu ñu ko mën a tegee ci taabal ñu si waxtaan di incha allahu rabi dinañu woo ñu waxtaan ci waaye bu loolu weesoo <clears throat> nee nañu ancien CDEPS bi xam ne bii léegi ministère de la jeunesse moo ko moom waaye léegi euh, euh, waxtaan nañu ba ministère ba mairie waaye jël ko récupéré ko da ko bëgg a def infrastructure culturelle loolu moom

Euh, waaw moom sax moom ci boppam moom Aliou Sall moom ci boppam dafa yokk ci salle boobu CDEPS bi def ci yokk la bibliothèque municipale mu ne bibliothèque municipale bi nekk ci foyer amoo kaat nañu xool ñun géejawaay culture naka lañ ko war a mun a animer ba mu mun a yëngatu ba mu mun a moderne ba nga xam ne bi day mun a parce que gannaaw ñun si ñun géejawaay culture am na ci ay pàcc goo xam ne ci loolu lañu ñuy yëngatu nuñ ko mun a occuper euh, bu loolu weesoo bi ñu rencontré

mbaa ñu bëgg a suñu ko fa def loolu pour wane ne ñoom coopération pour liggéey ak fédération Guédiawaye culture donc waxtaan bobu, ci niveau bobu. am na solo trop ci niveau infrastructure waaw euh, pour tontu si question boobu nga wax noonu troisième point bi événement yi animation culturelle bi ak diffusion bi effectivement moom wax na effectivement mettoon en place benn festival festival bobu acteur culturel sax la ko pour mu doxal ko waye dafa ne lan moo tax moomu génnaat ci mooy acteurs culturels yi seen ñoo def conférence de presse tak ay bandeau yu rouge bind préfet ne bëgguñu festival bi néna nak ben bar sax tubaab la utiliser mu ne il on peut pas être plus roi que le roi comme acteur culturel ñom ñoo bëggul festival nakam mom nga xamné mom acteur culturel donc mu renoncer ci ci ki bobu waye batay mom il est disposé à ça su fekk acteur culturel nangul nañ té du yam sax ci ben bi da koy def ñaar cette fois-ci ñaari événement annuel yoo xam ne yi acteurs culturels yi dañuy pan ci yan yan ban ban ban ban yan yan sous secteur lañ koy déjiyee ñoom ñooy xalaat ñooy wax ñoom bu ñëwee moom mu validé. très bien donc sur ce est-ce que nga yaakaar ni kon jotul thème bi maintenant euh, fédération bi am un représentant au niveau du bureau de la culture. xam au moins day bokk ci instance de décision yi mën a fekkee li ñu noté bi ñu noté. waaw loolu xam nga gis nga lu mel ni ay maire ay autorité bépp bu ñu mën a nommer mbaa ñu élire la ci sa discrétion yow loolu la ñuy pouvoir discrétionnaire yow yaay décider man équipe bi may àndal naka lay bindoo ak ñen ñoo fay ne donc loolu moom moom mooy xalaat su fekkee jàpp na ne tey hein, ku mel ni ne euh, Détuwaab Diop mun na ko xëcc mu woo ko mu bokk mu liggéey ak moom kooku amul benn problème mais ñun loolu duñ ko imposer xam ñu lu ñu imposer mooy ñun lu ñu soxla li ñun lu ñu soxla parce que wax nañ ko ko nee nañu bëggoon nañu sax ci cadre boobu ñu posé question bi sànq orchestre départemental moom daf ko fi waxoon mu nekk ñun lu ñu ñor parce que dinañ nekk musiciens yi fii dañuy am problème fu ñuy jouer fu ñuy répéter ka moo di accompagner parce que musiciens yi malheureusement ñu ñu bari amuñu doole ñu waxoon ko wax orchestre départemental mu ànd ci dafa ne orchestre départemental boobu nañu ko relancer moom waxoon na ko da koy relancer léegi moom orchestre départemental d'ailleurs sax amoon na ci partenaire benn ambassade boo xam ne bi pare woon na pour euh, jàppale ko ci waaw euh, bureau culture am sax mu ngi doon dox waaw euh, loolu loolu su pare ci sànq li nga doon laaj noonu mag ñi nga xam ne ñu ngi fii nekk fii ñu war leen dëmmal war leen jox gëdd dëgg waxoon nañ ko nañu rendre hommage ñooñu parce que am na ay vraiment ay ambassadeurs yi fi nekk yoo xam ne dañu doxo culture dañu dëmmal géejawaay jëmmal Sénégal te ñu dëkk fii géejawaay donc mu ne d'accord na ci loolu à 100 pour cent am na ci ñoo xam ne ñu ngi dund mais am na ci ñoo xam ne yàlla leen yàlla yërëm euh, génn nañu àdduna ñooñu tamit rendre leen hommage seen famille xam ne que ñoom liggéey gu ñu liggéey naxasaayul ba léegi ni ñi ñu ngi ciy bàyyi xel. ginnaaw seen euh, gis Aliou Sall seen démarche euh, seen seen seen feuille de route dañ koy tegal di wala da ngeen continuer ndax culture compétence transférée la am na yeneen maire yu fi nekk. Hmm. waaw les fu mu nekk nii ñun dañuy dem assemblée générale euh, ñu demee assemblée générale ce sera inshallah, dimanche prochain le 20, euh, le 24 dimanche 24 la ñu dem assemblée générale bu ñu demee assemblée générale on mettra en place parce que nous, suñu liggéey dañu bëgg a teg ko ci parce que boo xoolee depuis mois d'avril, avril ba léegi ñu ngi xalaat nu ñuy defee bi <coughs> fédération Guédiawaye culture en tant que nu mu mairie de ville la mun waxal mais dinañu mettre en place après assemblée générale bi des sections communales commune bu né dina am section fédération Guédiawaye culture bu fay né section bobu moy xol jafé jafé yoyu mu am fofu ak mairie parce que mairie euh, parce que culture bi ko transféré transféré wuñ ko kessé mairie de ville dañ ko transféré aussi commune mm-hmm. donc mais nak artiste wa commune bobu ñom ñoy tok wax sen jafé jafé ndax commune bi duñu Ben. ñun xamuñu xëy na am na yenn communes yoo xam ne ñu ngi doxal xëy na am na yenn communes yoo xam ne tay na am na yenn communes xam ne dara amu fa donc mënoo globaliser lépp waaye acteurs yi nga xam ne ñu ngi ci commune ba ñoom dinañu ànd ak ñoom te bokk ci Guédiawaye culture ñun waa Guédiawaye culture au sommet dañu ànd ak ñoom ci base ba rencontrer seen autorité autorités waxtaan ak ñoom pour xool yan solution dañu war a mën a trouver par rapport ak seen jafe-jafe yooyu ñu am foofu waaw bon pour teg euh, suñu suñu ah, suuf suñu plate euh, suñu plan d'action ou plan d'action revendicative es dañ ci parce que dépassé nañ ko tay ñu construction tay ñu ngi ci parce que su fait yow yaa ngi revendiquer revendiquer revendiquer li nga revendiquer ñu je pense que li nga doon da fay mel da nga tek mu donc ci étape nekk étape naka avec suñu partenaire la mairie de ville de Guédiawaye naka qui, wara mëna pour li ñu wax ni yépp ñu ba acteurs yi won ci mëna jëriñ lolu étape bobu lañu tollu tay mais pas étape ay sitting ak ay étape ay ay ay ay ay ay conférence de presse ay bande rouge ay affaire yoy étape bobu dépassé nañ ko tay parce que am nañu satisfaction ci niveau bobu lu dess tay ni ñu toog ak nak autorité yi ah xol nu ñu ko mettre en place motax légui technicien techniciens yi dañuy liggéeyal léegi ce n'est plus avec le maire Aliou Sall mais ce sera avec les techniciens yi nga xamné ne ñom la Aliou Sall djel def len ci bureau ak direction culture bi ñom lañuy ñuy motax depuis le 12 tàmbali liggéey bi ak ñom ba bàyyi ñu sax mu sedd le 7 lañu le jeudi 7 lañu maire Aliou Sall recevoir audience le 12 ñu toog ak ñom def ak ñom séance de travail ñu waxtaan ak ñom ba légui amna ben plan de travail bu ñu def ñu ngi dem sax ci ben atelier bu ñu wara mëna def journée de réflexion bo xamné dañ koy war mëna def pour xol li ñu wax ni yépp naka la wara mëna def pour matérialiser avec le ministère de la Wow, euh, ministère de la culture c'était plus facile parce que nous, euh, avons ñu leen nous rek euh, conférence nous recevoir délégation je pense que booba avons bokkoon na ci délégation bi ñu dem ñu rencontre avec la direction des arts Nous avons bu yaatu yaatu parce que

day am euh, day am euh, un service départemental jom seen bopp ñu nangu ne loolu lu lu dëggu ñu waxtaan ak ñoom aussi yeneen yeneen point les statuts de l'artiste ah Guédiawaye ville créative hmm, waxtaan ak ñoom la mutuel bi nga xam ne bi acteur yi ñu ngi koy xaar ñu waxtaan ak vraiment le ministère de la culture waxtaan yu yaatu yoo xam ne yi dafa soxal acteurs culturels yëpp au niveau national tout comme au niveau de Guédiawaye

couche de population bu mu gëna freiner parce que depuis mois de mars ba légui liggéey donc ñun ñoo wara gëna mëna taxaw pour xeex Covid bi donc ñun pare nañu pour def une campagne de sensibilisation campagne de distribution de masques euh, campagne bi nga xamné bi dina mëna expliquer population yi gravité wu maladie bi et puis lan motukay li ñu wara mëna jël pour que mu bañ dal manam les gestes barrières donc euh, proposé nañu le maire jour boobu ñu ko rencontré également euh, cette campagne là. ñu xool waaw commencé nañ ko commencé won nañ ko ñu ngi ci won ak première vague bi inshallah deuxième vague bi aussi bëgg nañu organiser wu bu baax dem ci comme ni mu waree. waaw te maire bi aussi nangul nañu ko également que dinañ ci accompagner avec le ministère de la santé ñu xol vraiment nu ñu mëna def parce que acteur culturel yalla may nako ko porteur de voix la bu waxé waxam day porter donc nous sommes prêts pour engager qui vraiment lutte contre Covid 19 c'est la deuxième vague euh, Pour le il y a un point important am importance par exemple le quatrième point parce que <clears throat> une ville créative une ville créative euh, du Sénégal